mbokk yi loolu mooy combat bi nga xamante ni Treize Ndir daan gis nañ fii ca dëgg-dëgg bi làmb ji ubbee ak léegi xale yi ñu ngi wone seen bopp te loolu promoteur yee leen ko may sooy bu li mu def rafet na Serigne Modou Niang li mu def rafet na ba tey ji mi ngi jël ci xale yi nga xam ne ñoom la ñu am ci ñoom yaakaar ngir làmb mën a yokku waaye xam ngeen ni Bantamba jeexagul balaa ñoo dem fa nga xam ne moo di États-Unis mbokk yi xanaa kay. ñu wax leen ay ASC Saalum ndaxte moom it la set ci la fas yéene def li nga xamante ne nii moo di làmb lutte avec frappe boo xamante drapeau Souleymane na Ndiaye la la 7 décembre stade Diom Lamine Gueye grand combat bi nag buubu joom la ak boo mu di lamb ju mag joo xamante ne nii yaakaar naa ni Saalum gépp dinañ génn fekke ji ko. samedi ak dimanche stade Iba Mar Diop moo xewle. benn bi Pape Mbor production bu Ngunjaan mooy tëgg Libidoor Onde le Fou loolu samedi lay doon bi ci des di dimanche ki nga xam moo di Bawol production ak Assane mooy ñëw ci combat boo xamante ni nii doomu dangu ak marle combat yu neex topp ca te Assane xam ngeen ni moom tamit tàmm na ñi nga xam ne ñoo di xale yi. kon daal loolu bokk na ci programme yi nga xam ne moo am ci Bantamba kon mbokk yi léegi li ñuy def rek mooy ñu dem États-Unis dañuy dem États-Unis fekk fa guy gi wax nañ leen ko bantamba day dox yi tànkam dem fu ne kon li ñuy def mooy ñu dem États-Unis dem New York gis guy gi mu ànd ak boo ànd ak gars yi nga xam ne ñoo nekk New York loolu yëpp pour won leen naka lay préparer combat ak ki nga xamante ni moom moo di Zos te Aziz Ndiaye mel ni mi moom aale moo ko tëgg combat boobu bu soobee yàlla dinañ ci dellusiwaat bu baax kon États-Unis dafa oh, ma dara la. waaye. yow kay yaa ndax yaa ngi doon. waaw man foo jëm nii lu ndaw lu tuuti émission teg live guy gi à New York ndax sama doomu boobu ñu mën tuuti Sénégal yi rek li ñuy dund New York par rapport ak làmb jëy yooyu ba. wala ñu dem ci kanam. looy waajal bay dem gym. waaw ñu dem li nga xam lépp nañ dem gym. non lan ngay waajal dama bëgg xam looy waajal. waaw li ñu waajal moom kenn ku ne am na ñu jëm ci bis bu rëy le 6 mars. combat boo xam ne moom la dañ ko war a gagné damaa la quoi. ah ñëw. bu naan rek. bu naan lépp. <laughs> moo lay may énergie suba teel bi. ñu daal suñu boo xëyee boo ko jëloon bon la. <laughs> da ngay koot ci koot ba nga jëm. d'accord ki moo jëm ci miskili. Ah! ki moo jëm ci miskili. laay. day ale ko gis xam na retour am na retour. Eh! dama waral wax jooju. man dem rek. à suivre. tey maa ngi yow ba ngoon. bismillah. voilà. dina la. essentiel. Eh, eh, <laughs> du may gis essentiel. Sénégal sax du may gis essentiel. non léegi taw seen kër lañ jaral na ma ji léegi léegi léegi Sénégal. kii du ma du ma ci yegg. est-ce que léegi dafa gudd du ma ci yegg mais ndox doy nañu. jël essentiel rek waaw. du ma ñëw. xalaatuma. bii moo gën a wóor. essentiel essentiel. mooy bëñumaa boobu noonu fi boo génne woon noonu sànq bi ñuy ñëw. waaw defe woon kii wu live goes on. oh yeah yeah yeah. Harlem foofu noonu. yeah. man kay dama cee dal dëgg. sa fan sa gaan mooy loolu. ci loolu nag <laughs> xanaa xamoon ni ki nga gën a bëgg ki nga gën a bëgg dalay dikki ay day yomb nii. yeah. wala. man de tubaab nga gën a bëgg. noo ma ni ki nga gën a bëgg boo koy wër nii day. xoola man li ma waroon kii man la li ma doon xam di rêvé tuub ak affaire foofu noonu ñu génne fa la defee benn clipam affaire yooyu li may laaj góor xam nga rek ay yeneen ak yeneen naan su gisoon tuub ak su ma demoon kàr la foo ñaag affaire yooyu xam nga mais la vie àdduna la. Eh, guy gi eh. non yaa ma génne anglais mais xam nga rek da ngay réew a sonn. parce que naam. guy gi du du ma ko bëgg di ko wax. xam nga mais xam nga. fi noonu nii. ñu lay praat fu ñu nekk. deux deux. how do you say uh, guy gi in English. yeah yeah yeah. I'm a guy man. I say how how do you say guy gi in English. No, how do you guy gi in English. Sam man. How do. You... That's right. That's right man. Yeah. Gary? Gary Match? Gary Match? kay moo bi ma grand bi ne comme yow fan si Tupac nga Tupac moo daan dawal bi yow Tupac bi laa daan yéeg yéegal ci bii. Ah. gëmeetu ma ko dama ma place ginnaaw bi rek jox ma joxal ma boo ma droite. <laughs> Eh, te dégg naa Tupac fii la daan really mais biñ ko rey la toogee ci Mercedes bi ci kanam quoi mais moom ginnaaw gi rek lay jël place droite non Tupac waay ci yàlla. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My nigga, who told you that? to live brother. kii kii yëpp koo kii yëpp sama boobu kii yëpp moom dafa dal. Hmm. Eh, surtout Ted Live xam nga Ted Live moom kuy góor la góor a dund Ted Live moo tax tey. dét live laa bëgg a xam nga mooy loolu. foog nga daw Sanchez. non daw ma Sanchez. non Sanchez mooy les Sénégalais. maanaam fii fii xam nga boo ñëwee dañoo sonal gars yi am fii dëkk joob la day ñëw yàq leen seen coob indi embouteillage tam ñu koot la yóbbu ci kaso bi xam nga mooy loolu Sénégalais yi gisee xam nga mooy dañuy ñëw rek jël la yóbbu ci kaso bi dafay nag fi indi coow te fekk sa fan si ngay waxal te fii moom buñ la kootee bala ngaa wax lu kee ma kër yi kër yi Sénégal day bëgg taal loxo bëgg indi embouteillage wóorul loolu rek la mais dara moo rek mooy loolu. mais code mooy la. kato. ah code kay ba ma xamee ba tey damay moytu booy dox sax boo demee nii man man nii nga jàll la moo fi buñ la codé ñu wax ci dégg naa deux ans trois ans. mais ko code code kay xam nañ ko code kay bañ ma làkkee ne ma xaw ma lan code ma amul problème dégg naa leen. kan moo làq kot loolu ku la làq loolu. américain mu bokkul saal di yëkkati poids par poids bi la alko nga wax waxi kot ma laajte kot ñu ne ma kot ay kas ma ne laa We trade war stories. We outlaws on the rise, jealous niggas I despise. Look in my eyes, we trade war stories. Rhyming and festive Rolex, still in her recliner. The war units for silver, trying to sip it. Final model, you see what's not the diamond mine is the hunt. léegi moom bu ñu nee Abdou moom non waaw sama dama lay fu génn Yeah, man. from Senegal. Come on, come on, come on. combat ci la Afrique ñaar yëpp fi États-Unis ci combat am laa ñëwee ak yeneen ak yeneen di ko yàlla ma ilmaan la muy sumb yàlla sumb dimbal leen ci ñu ci luñ ci foofu ci kaw Sénégal gépp moom la ñuy waajal ñu combat boo xam ne koo xam ne ratatatat rek lay def comme métti waaw li may waajal nag moom jar na sax ñëw fenn mais wax nga ko de da nga ne ratatatat comme métti métti neexul ñeme de waaw moo tax moo tax ñu ñëw États-Unis parce que fii ala boobu si am na daal te gëm naa ne retour bi incha allah ñu ngi ci lu bëri sax te ñu lu bëri loolu lu ñu doon def benn ñu koy doublé. dañ ci yaakaar ni ñun ñu ngi Auvilliers te ala boobu am na retour te Dakar saf safaar yaakaar naa. mais dafa mel ni waa ji ñi moo ko de comme da nga a bëre woon mu daan la ngeen war a bërewaat dafa mel ni nag yaa ngi koy sóor bu baax a baax a baax. su ko sóorul omo jom wala daan kay naka mooy sa champion. mais gëm naa ne bu ñu dajawaatee yàlla na mu suturaal bu baax a baax dama koy daan moom bi may daan moom defe naa ni boobu xale laa daal te yàlla moo ñëw ren ma daanu yàlla laay ñaan aw ma ndam nag ndam damaa jafe mais yàlla laay ñaan quoi yàlla ma yàlla may ndam boobaa may gën a mais gëm naa ne dina wutee trop. di nga jot wala doo jot. lépp laay def jat ba génn si taw taw taw. bële paase jatoon nga mu fekk la fa de. nga taw Usain Bolt am Usain junior a ngi nii <laughs> salaamaaleykum Usain Bolt junior lu wóor laa nu ma def ba am ndam dinaa ko def combat bi lu ko jaral benn jaral fukk maa ngi nuyu sama benn maman mère Sagar di nuyu doomam Mati di nuyu mami ak Mati ko perte eh. mais jàppoon ni combat bi si yow la ëpp pression que moom comme moom moo mujjee am ndam si yow. non moom am na pression amul pression man xale la man li ma war a def naa ko dinaa ñëw indi ambiance indi fecc indi bëre jël combat bi nag teg ko fii bu am ciblé ma tëj samay bëj. ne ko tegal fi ndam bi sama mais bu si sifflé mu tëj kombaa bi taxaw si ay gardam ba ñu ñëw looy def. une minute bu ñëwul ma ñëw. incha bu neexee yàlla. waxaatal loolu. une minute bu ñëwul ma ñëw bu neexee yàlla. can you say that in English. waaw loolu après la comme ni ma wax dafa ñuy jël angale jàmbur yi di ko traduire quoi. non man waxuma kii laa bëgg mu tëgg sama combat. mais xam a keroog maa ngi wax ci benn télé ma ne Aziz dafa def loo xam ni góor da koy foogu doo ko mën a teggi quoi Aziz bu ma fay loon dara du ma ko te suma ma përëwul ah su ma fay ma bëri mais daf dafa tombé muy xale liggéey nekk seen talent nekk banlé di jàpp doomu banlé ma ne ma nekk seen talent di liggéey prouvé yàlla boole ñu boole ñu suñuy combat mu tëgg ko mais du caaga dama ne Aziz moo may tey moo Aziz tëgg loolu keneen damay sama ñaari combat la tëgg sëñ Mourou Niang di ko tëgg na sama 15 combat gas na na ma lig ñu ko laay tëgg na ma Assane Ndiaye sama xarit la Pape Fall tamit tëgg na ma ñëpp damay tëgg mais nag Aziz Ndiaye bu la fay xaalis ne dama bëgg nga def nangam def nangam yàlla boole ak moom deful lu ñaaw kooku kooku wax dëgg yàlla mais bu ñu loolu nga kenn du ma tëdd te xam ne mbëri dañuy ñëw rek ak ah mais bii dina wuute ñëpp nag ci ma lay ay doom ay doom wala ay politique da ngeen naan si doom ñëpp xam nañ loolu non man ne damay wax di ma ni xam na mun na après daal la bàyyi mais mënu def un deux mois euh, di lekk di naan di tëdd rappaay di def nii sama doomu ndey boo fu ma tourné mënu ma ni ak yeneen yoon jën wax télé quoi am na mooy loolu kër sama gale gis nga ko sànq frigo man ba may ñëw États-Unis dama ñëw daal suma xaalis suma lépp ñëw ne laay njaay xaalis ñi pour laay na ma compte xaalis dama boo bëggee nga wala nga delloo ko lépp man na dem mu jël daam mu jël xaalis daam xoolul bi ak yeneen ak yoo xam ni muy geste yu rafet xam nga te loolu dafa war kon yaakaar naa fi lépp mën na. ngay jot di naaw di lekk nekk xale heure fukk six naa doo caaba di lekk di neewi di naan soow pot soow di ak yeneen yeneen doo moo la boo jëlul poids da nga feebar ah. bu demee gàll liñ ci xam dara après boo dana expliqué quoi expliqué mooy yooyu du ma ci wax quoi xale laa xam nga bu na ay cent cinquante kilos wala cent quarante kilos yooyu bëgg naa am naa ko bu yàgg mais nag ay étape la quoi ay étape yee ale boo gis am na retour. nga ne. ale ñaari yoon mukk wan wan. ci la bokk naa ne yokk au kilo man rek au kilo nga yokk bu doon ay ñëw bu dee gan gi yokk poids toog Sénégal ñu ñëw fii pour yokk doole xam nga yokk doole yokk xam-xam quoi. ndax kii ko quoi bu la loolee dañuy toog Sénégal mooy tax a ñëw na quoi mais bu ñu demaatee ba xam ne ñëw nañu xale maa gën am ma giraar marge non lii moom lii moom guy gi moom ku ko yàgg Sénégal entraînement moom di nga xam ñaata lay may yaa ngi xool maa ngi xool ko sama booy xool yu mu bougé ñu ngi xool di nga xam ñaata la quoi yooyu yaa ngi xool parce que xalaat heure il faut six six nine euh, channel kon lañ ko changé ku ñu ko doon defee ne dix dixième ak quatre-vingt-six bi quoi. ñaata kilo la paaw ñaata kilo la. ah 260 paaw mooy 118 kilos. 118 kilos. on foog si dina la caa tubaab mooy xel noonu. fan nga Sénégal. yow yow yow yow suñu mbokk. non yow suñu mbokk. ñun ñu doon def ñun ñu lay fekk nga def ñun amal kii ñu li yow sa waay mi ñu lay bëgg a laal moom moo bul laal. kon yaa ngi dégg mu naan ko boolaa da lay koot. yàq a xam nga ñu ne affaire américain moom yàq. loolu loolu yow yaa ngi a sakku. a coono maa ngi fi. damay paral waa ñu baax. bu bari wax ci wéesi. coono jiw ok. gis nga suñu mbokk yaa ngi fi maris la dëkk maris te ñun eh, xool maa ngi ko bu naan ko bu laal dañ lay koot. dégg nga waa ji dégg na lépp moom it waxul dara ko lu ñu couché lii mooy inclinage lii du couché booy couché da ngay teg 4 4 4 4 4 1 2 3 4 pas mais lii du couché lii mooy inclinage dafa mbëri benn ji ci teg di inclinage mais man maa doon jéem far teg 2 musuma ko def nag G ak couché xam na li may wax musuma ko def moo tax léegi waaw yee yee non G boobu moo ma jàng moo ne force nga def ko keroog bi ma tëddee ba guddi dama woo daam daam di ma xëcc sama loxo yi def nii ma ne ko daam man mii dañ maa liggéey ma weññi la daam di ma xëcc may def nii sama loxo baax moom moom mais léegi nag alhamdulilah loo jàngul doo ko mën loo nekkul taalibe lu nekk sëriñam nga def si Facebook lan la guy gi 2011 arobase fm guy gi guy gi 2011 arobase arobase atmail point yahoo fm boo ma sama Facebook quoi léegi sa email lan la sa email non ma koy jox ñu dugg ci loolu kenn ko def di intelligent yow tukki naa ñetti yoon. maa ngi lay nuyu El Hadj Ndiaye. yaa ngi madame bu baax ku baax la. kon naqar dara waaye ku baax la. sama combat nees ñu ko siyee. ñu ñëw nees ne. waaye. guy gi moom. maa ko raw mënu ko jugal jugal jugal jugal jugal. du bëri. El Hadj Ndiaye moom naqar nees ku baax la nag quoi. alxuraan baax la ne da ko bantu. ñoo salminé. banndiraaɓe harmaɓe fof jooni guygi miñol mum ɓinngel mum dañiɗi combat mawɗo dowla holɓe kaye ma anndi baax The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me drugs, Lord is making the grip. Told the judge I was way small, that's why I played shit. Was hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile, calling big shots. On the scene, major packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion, I'm living a case at a fast in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit, I put the top down, now it's time to floss my shit. The fans is watching. plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me charge. Lord is making it quick. Non, dis naa tiis. benn du ma ko ko may. tiis. grand mag nan laa koy may. 14 15 16 11 sama fan si rek ñoo tax bu loolu du ma dagg bi 800000 ñëw di entraîné si. mais man wax naa la lii baala ma ko mën te yaa ngi ne di yëngal ay tànk. risque la rek man naturel bi rek. Grand fas na dara su ma duggee New York pour ma laaj ma ci foofu moom damay sant rek gërëm quoi vraiment dama njëkkee kër ga ma nekk ñoom laay Ndiaye maman Yaam Dam maman Mati ah xam nga ñoom aji xaadim vraiment ñoom mbay dama dama leen nuyu baadal kër gi ma nekk vraiment aw ma seen fay xam naa après dafa dem yaatal quoi xam nga loolu après la fi dem yaatal xam nga nuyu ab mi dinaa sama papa Abdou Diallo nuyu na ki nga xam yàlla boole maa moom fii muy boo xam nga man dama ko jàppee comme mag quoi bu ma sax gërëm parce que moom bu lay bu lay dund lenn nga di ko gërëm wala mu dox di wax sax nga dox fay boot bi quoi wala nga nar a dundee neneen mais dama koy ñaanal yàlla rek parce que man sama xolof seet ci ma ko sax toog di waxtaan yaayam woo ko mu ne fa ko nekk sànni tànk te loolu ñuy wut kon man dama koy ñime su nekkoon fii dégg du ma wax yaayam wala mu nekk ci leneen billaahi du ma dégg parce que man maa bëgg sama man ñi ma xam xam nañ ne lan woowu xaaral ma ci jëm léegi américain la. macha allah maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw low. Keeping my fingers wrapped around a joint, these niggas up raw. I'm from the sea, I'm forward to the strong point. More when they losing down the line. A 50 puff roll, a tough low. Oh, nigga, pay me mine. I'm at the day, like the price on your lips. Vamos de agarrar más pollo, ni pues. Essa dañuy dem leer yi maa ngi guddi saa dañuy dem ni kër sax ci Amadou vraiment ñooñu moom ñu baax lañ quoi moom bu ñëwee ba tey ñooy res bagage yi ndékki yeeg añ yeeg yooyu sax tey sama sama anniversaire tey la te ma kara boo xam ne ñoom def nañ yëguma ko te ko kara boo xam really lan ma really lan ma really ah, yes yes happy birthday lan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 kon yaakaar naa tey su may ñëwee xam nga di wóor ñu xam ni su may mbokk lañ wala ñu xam ni états-unis lay jàppale naa ñëw ca sa sa xam ñëw wax leen ni carrément dama seet si nuyu si ku mel ni Racine ñoo ko fi mais soxnaa mi ngi nii moo ko teewal kii kii moo ko teewal vraiment xam kon lii cër la mu tombek tey tamit suma anniversaire kanam yi ma defal ah, Fapal wax na ma ko kii euh, nañu ko quoi. déedéet la ma ko déedéet la ma ko. happy birthday happy birthday. lan loolu loolu mooy lan. happy birthday. lan happy birthday. happy birthday waaw thank you thank you. moo taxoon sama terrain de kii restaurant yaakaar ni ñu ne defal traga noo mën a def def def war ngaa ñëw ci moom remercier ko delloo ko njukkal comme ni mu demee euh, seen kilifa seen njaatige laa koy njëkkee raaj ba ci ñoom ñëpp ñoom amul xam parce que nii la ñoo xam ne tamit xam nga delloo ñu ko day war quoi boo dugal man Sénégal bëggee salaamaaleykum Abdoul nanga la my boy sant ah, ah, kii yow sant fa nanga la gaan nanga la sant forom Sénégal waaw ah, sant sant alhamdulilah maa ngi <laughs> sant yàlla nanga la nanga États-Unis du galas nanga la gaan galas sangoog sama gars yi sant na fi Sénégal di kenn xamul rek oui Galas la. waa tey fi ma ñëw nii war naa fee ñëw su ma ñëwee New York tey gaa yi ma defal émission Bantamba Tech Live Tech Live mooy dund boo xam ne moom force nga jaar fi quoi waaw li américain yi wax te kon yaakaar naa su ma ñëwee seet sama am ni jàmm war naa fee ñëw seet si. suma gara Abdou des fois da ngay dégg télé yi ma naan Abdou daaw la ñu xamante woon daaw la ñu woon maa ngi galas moo tax ñu xamante doom yi affaire yooyu mais defe naa ni suma lépp la suma mag la suma gara la du nuyu waa salon bi nag parce que salon bi salon bi suma salon la dama fiy bëre di am nu may dégg mu may neex suma salon la daal ñi fi nekk ñëpp ñenn ñi xamante nañ. ñenn ñi xamante ne ñenn ñoo bokkoñ gunaas <laughs> xam nga ak yeneen yoo xam ne xam nga vraiment mu neex na fi quoi vraiment moo tax ma ñëw seet si leen def benn émission jaar si nuyu leen wax leen na guy gi mi leen di bëggee bu nekkee Sénégal ak bu nekkee fii kon bu ñëwee fii am savale occasion la profitant la occasion la pour la xam nga donner tout de parole moo tax quoi moo tax quoi guy gi li mu fi wax nii yëpp ci moom la parce que guy gi dafa nekk nit ku man dama kontaan bi ma leen gisee nii ndax daf ma sa bett mais guy gi dafa nekk nit koo xam ne daf ñëw bëgg ñun famille Ndioumène te man xam nga Ndioumène may daaneel man lépp lu Ndioumène bëgg rek dama ciy dem ba jeex surtout ma Abdou mi nekk xaritam xam nga ñoom ñaan ñu bëggante te guy gi dafa baax guy gi dafa baax man baaxaay mu man man maa la ko mën wax maa la ko mun seedeel parce que dem naa Sénégal une semaine laa fa am su ko neexoon mu ni aw jot non we don't talk we just do it combat bi di ñëw nii xam bëgguñu di wax dañ koy def jikko américain ne ko yeah we don't talk we yeah we yes yeah yeah loolu listen to him même Balla Gaye dañ koy bëgge parce que guy gi ci boppam day wax ci moom lu baax xam nga moo tax dañuy bëgge Balla Gaye ñun tamit waaw Yeah, come on. Sam, hi. Hi, dude. Abdallah. Gana naga la. Sadu alhamdulillah naga suna ah. bi naga suna bi. Sadu alhamdu. Naga la. Alhamdulillah naga suna bi. Tey sedd métti na. Non. Dafa sedd dafa sedd dafa sedd. Dafa sedd. Gannaaw fu ne ngay génn rek. Apollo. dafa tamit yàlla boole ak ku ñëw Ousmane Tongara Ousmane Tongara mooy kii muy grand boo xam ne tamit yaa ngi naa dégg trop daal muy yëngu ci ay social dimbali ay doomu aadama nag Sénégal te nit du xam yàlla def mu bëggal ma boppam ak soxna ma ñu toog benn bis waxtaan aw sax moom a xam moom sax moom xamul affaire làmbo ñu waxtaan mu toggal ñu ceebu jën vraiment chaque jour ma koy tooyee ceebu jën bu neex léegi ma fekkoon nag ci loo xam ne nii moom waxuma la sax sawar we ñun la ko defal ñu yëngu ci benn mouvement boo xam ni paa lay doon mouvement paa bi muy loo xam ni tamit man dama ciy sawar surtout ñun mbër yëpp te yaakaar naa ne ci mën lañ koy ibbee te incha allah dans quelques instants rek ma dem Sénégal ci mën ci mën lañ koy ibbee daal bu soobee yàlla muy loo xam ni social la boo xam ni waxuma la Afrique euh, Sénégal rek mais képp kuy der bu rek bu soobee yàlla bu ñu yàlla sutura rek di ci gis sa bopp quoi. voilà bi ma ko waxee vraiment comme may def tey émission euh, Bantamba ñu seet ma TED live à New York ma woo ko mu ma maa ngi moom américain la Sénégal la mooy loolu maa ngi Apollo ma laajte Apollo moo tax ñu daje Apollo vraiment muy gannaaw boo xam daal <coughs> sedd bi la wuup xam ma ko ah yaa ngi dégg tàmmoo ko vraiment muy grand boo xam ne moom mooy Ousmane Tounkara mooy grand bi maa ngi ànd ak tamit Seyni sama gaan doomu mère jàll xam nga muy sama waaye moom it <laughs> bàyyi Sénégal guy gi du suñu mbër ñun comme ay xale la te xalaatu xale la ñu yor te vraiment dañu gëm li nga xam ne moom mooy sport donc euh, yàllaa def mu boole ñoo guy gi li ñu gëm rek mooy avancement tey li ñu gis ci guy gi tey vraiment loo xam ne la neex nañu dafa nite bëgg na réewam bëgg na avancement réewam donc euh, looloo tax ñu lang ci moom daal ñun vraiment ñu ngi ànd ak guy gi ñun mooy suñu mbër nuyu Sénégal di ñaan Sénégal jàmm yàgg fa ti wér quoi comme li ma ko waxee nuyu Diouf bi Abdou Tayeb nuyu sama yaay Waré Sarr nuyu naa ñëpp daal mais li ma gën a neex ci nuyoo bi mooy nekk koo xam ni li nga wax de de du d'utiliser quoi dëgg la loolu moom ma gën a neex ci nuyoo mais nit mën nga ko nuyu fekk da ngay fen wala li nga wax nekkul quoi. waaw combat boo ne yaa koy pare bu baax xam naa ne boo gisee guy gi avant l'autre derrière l'autre avant tamit nga xam ni ñu pare combat bu baax. non combat bi mën na yokk ngir du moom quoi mais moo tax ñu jël avance bi parce que dañoo teg suñu bët feneen mais moom ci la quoi li ñu soxla ci poids wala leneen non du pour moom quoi mais nag soxla ci poids rek non mënuñu ko bëree moom quoi dëgg yàlla. fans yi comme ni ma la waxoon tey saal bi rek ñoo tax may reyante man su may reyante rek ñoo tax may reyante quoi su ma nee ma ne nekkul ma seen xool ma bàyyi ko dem defi leneen investir leneen di jaay jaayaan daal comme nit ñi mais comme commencé seen xool rek bàyyi ma xam nga dund la ñuy bëgg seen jël mel bon sama daw la waaye. parce yokku bi mamaa ngi ne repas yaa ngi ne yaa gisal sa bopp déggoo ma de repas yaa ngi ne yaa gisal sa bopp ñu fii manqué wuñ dara man bi may jógee États-Unis bi may ñëw dama amee ndax xaalis mu ñëwee mu ñëwee ma ne laaj xaalis pour ñu def yu ndaw ndaw mënuma sa xaalis téye booy am looy jël wala ay crédit yooyu nangam mu changé beneen kanam ñu dem ma ni daam xaalis mënuma tegal naa la ko fii boo bëggee di ca manqué wuñ dara dama ñëw fekk fi lépp mu ñëw fekk fi lépp côté boobu vraiment moom sant ko. non lekk hmm. kon kay jeex na deux mois laa def ñu tëj ma ci kër gi maman ngi nii soxla soo yaa pare day defar. man naan gisoo fan yi ma koy tooy daal ko daam te mu gisaat bàyyi soo mais bala mu tëdd mooy loolu maa ngi wu ma dara lu ma bëgg mooy loolu bu xëyee danga ma looy lekk lii loo lu may togg la xam ne xale la bu ndaw ñu togg la ci ba mu fees nga ne mois da ngay damay damay màgg ak noppalu gu nelaw. ban différence bi fii da ngay tranquille gis nga fii suñu gàlla nii la fii kenn buy liggéey sax du dox bu baax ngi bañ a kenn fii dëkku mentalité la sixième continent science la ñuy kenn du yee kenn ci dara mais dangay ngay gis bu dee Sénégal xër xër xër eh jógal heure bi yee keneen ki doo nelaw mais fii lépp ci temps la da ngay dem da nga yor view dëkk bi dina man man man may dem ba damay damay tëdd sax di xalaat loolu su ma demee Sénégal mais man lu may liggéey kuy liggéey man na mu man dara lu may liggéey man fii mag yu man dara man su ma su ma ñëwee sax soo ma am stress sax su daaw ma jee sama stress deñ ma nekk ci beneen monde xam nga na mu man dara fi am na fi moom. sant yàlla ko wax dëgg yàlla man moom sama tukki États-Unis sama ñëw États-Unis moom wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin sama yaay chaque jour moo wooyee loolu la muy njëkk a wax ba léegi sax woowatu ma fa nekk xam rek doom neex ci xol affaire yi surtout nga sori ko trois mois man kenn ko ne ni ma sama ñëpp xam nañ ko ci man su ma joxee ñaari baat sama xol damay jooy force la parce que am lu mu def ma teg sama bët am ak yeneen ak yeneen kon naa bu demee noonu rek kon ko waxee loolu moo namuma dara sentir ma dara maa ngi ci bien yu baax kon yaakaar naa ni yokkaat sant daal. maman indi ñoo ci bokk yam de yëpp ci xool ci xeetu rappaay rek. ci xeetu rappaay rek da ngay naan rek da ngay naan boo doyalee bàyyi ñi ñi ngi nii waaw <laughs> jël angale yóbbu ko traduire ko ñu nekk Dakar ñoo xam ni. ay làkkat lañ di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp waaw di sant boobu moom dama koy utal mention spéciale parce que nit ku baax la bi njëkk di gisee maa ngi wax mama ba mama naan man boo dama bett xaaj maa laa ko ma ne ko man de xaaj maa laa ko tegoon non parce que non da ngeen nit day day wax naturel parce que dafa am xam xam nga ñu toog mu def jëf joo xam ni dafa marqué ba tey mu ñii la koy teg ci yoon affaire bi damay touché en même temps tamit ñu toog barki démb yaayam woote man dama directeur yaa boote na ma gërëm naa ko bu ko neexee mu sànni tànk sëpp kon kii bu ko neexee tey muy dox ci mbedd États-Unis yi wax lu ko neex kenn du ko def dara parce que yaay mooy lépp xadis nee na taqadal aqdaar umhaatu ajjanatu ajjal kon yaakaar naa loolu mun cee sukkandiku monsieur Ibrahima Diop bu Tëngéej kër Mbaye Fall du nuyu di nuyu Baye Diaw di nuyu Mbaye jaw xam nga nuyu sama ganaam mangaan Dubaay du nuyu Andaw vraiment ndaw xam nga lu nuyu mbay jonn xam nga vraiment naa ñëpp ñu jàppale guy nuy sama sama maara yi xam dañuy bañ ma tudd seen tur te M M <laughs> non S A. <laughs> di euh, remercier sama jarbaat muy Aziz Ndiaye parce que vraiment mënu ma wax ci ci guy gi sans pour autant ma wax ci moom. parce que sama jarbaat la bi may ñëw États-Unis ci moom laa daloon donc bi mu ñëwee bi ma fi ñëwee également toppatoo na ni mu war a toppatoo wutal na ma liggéey et puis ma ba nga xam ne mun naa demal sama bopp daal bu ñu xamee tey guy gi bay nekk ak moom tey c'est grace à lui ma koy ñaanal yàlla également projet yi nga xam ne nekk na ci yàlla dimbali ko ci ba mu réussir ko ni mu ko bëggee. bon côté li nga xam ne nag mooy mbër mbër bi mu doon. xam na li mu bëgg xam na ni fi mu jëm xam na na muy def ba dem ca mu ngi États-Unis cent trente et lan dëkk cent seize mënu fa boppam parce que li mu gëm mooy bu xëyee dafay xëy dem séance d'entraînement entraîner ba moo xam la mu bëgg a bu ñibbisee ce qu'il mooy day sangu lekk ba reg tëdd nelaw mu wàccee cinq heures mooy dugg ci kër gi day jóg yeewu sangu dellu entraitement ba 10 ci guddi bu ñëwee coob peut-être draye ak gaayam yi tuuti escayef dem récupérer ci donc loolu laa ko xamal ci dëkk bi bon ma ñaan yàlla nag bon combat bi nga xam ne mi ngi koy mu ngi koy jub muy moog Zos ah yàlla defal ko ci ay xewal mu daan Zos rek quoi parce que parce que lu njëkk li ñëpp xamoon na ne erreur la yaa ngi dégg mais xëy na erreur yooyu tey dina ko mën a dina ko mën a rectifier ba cette fois ci bu jàkkaarloog Jos dina ko daan. lu ma lay wax rek chaque jour ma wax la ko sa ko sa combat bi moom incha allah ma ne la tey lay def rek chaque jour ma wax la ko ma ne la tamit lépp lu saawaay wax moom. bàyyi ko ci biir rek da lay jéem a day jéem a tàngal sa xol ak yooyu peut-être bële seen combat bële erreur am na parce que rukki nga woon boobu nandoo woon game bi bu baax te yaakaar naa ni léegi. you know ñor nga mais à loolu moom vraiment gayaan bu baax nga gayaan bu am kóllëre nga xam nga you know nitu nit yi nga soo di la ñaanal yàlla defal la ndam si turu gaa yëpp. guy gi daal nit ku baax la ku fonk liggéeyam respecté na ay entrainement bëgg na li muy def amul daal benn problème chaque fois dañuy naan boo nekkee ak ay mbër mbër yi xam nga lii laa vraiment man gisuma jikko yi ñuy wax daal ci mbër yi que mu am ko vraiment nit ku baax la ku yaru day fanaanoo déglu alxuraan xam nga guy gi daal vraiment doo xam loo wax daal man mi si liggéeyu kër sax daf ma ciy ñëw di jàppale dama ko naan guy gi vraiment bàyyil mu naan ma lii dama koy defal sama yaay te balaa ma doon kontaan sama yaay toog kontaan ne ay waay sama jàmbaar ji liggéeyal na ma lii vraiment loolu day daw sama yaram chaque fois su ma ko waxee dama ko naan yow li la dese ci àdduna yàlla du lii rek la lay may am na yu bari yuy ñëw nag Bantamba moom day saaraan dem bitim réew wax naa leen ko ndax te li nga xamante ni nii mooy coow ci dëkk bi tey ji moo di Rocky Balboa Rocky Balboa nag e ñu gën ko xam ci Papis di xale boo xamante ni xale bu man li muy def la moom it waxtaan ak werante bari ci diggante mag Balla Gaye dina nu bëree du bëre mu ne nag moom il faut mu wax ak waa Sénégal buy wax ak waa Sénégal nag fi mu yaakaar ni fa lay waxee ak waa Sénégal mooy 2STV ak Bantamba su ma diggante man ak Balla moom waaw li ma ci wax moom bëriwul mooy Balla champion la il a fait ses preuves foo preuve am egg fi ma egg tey man ma nekk fi en Europe wala samay preuve ba egg fi ma egg tey waaw loolu moo ñu boole làmb moo ñu boole comme ni Sénégal ñu ngi wax naan làmb ñu boole làmb ñu boole kickboxing bi boo koy def boobu. affaire fayet moo tax ma ko doon def quoi fayet nii rek xam nga parce que sécurité bi ma doon dawal noonu xam nga moo tax ma jàng arts martiaux boo xam ne yooyu mais bokkul ak sama bëre bi may pratiquer parce que bëre bi man damay def lutte libre def lutte suisse di def alxaaw kooku mooy bëre yëpp lañ boole mu ànd ak dóor ak wekk ba kooku muy alxaaw yàlla dimbali ma ci ma yàgg ci compétition ba tey yàlla def ma gën a titre monde bi téye première place war a dem défendre sama at bi di ñëw a Dubaï yaa may dégg su ma toogee di wax la ma lu ma def ci bëri du fii du fi jógee voilà du donc bu loolu. sa adversaire instant yi kan ak kan nga war a xalaat war nga mën a bëri ak moom. waaw xam nga man man man champ man champion rek laay bëri. parce que xam nga man dama nekk fi di grimper di grimper di grimper ñu may daan may daan ñu may daan may daan ñu may daan may daan ba tey yàlla jàppale ko ma ñëw ba egg fi ma egg donc grimper daal mi ngi mel ni footballeur tey bu ñëw fi daan na ko football mais bu ko Sénégalais yi soxlaa day dem fu muy dem def national fa day dem bokk pour dem défendre son pays man nag c'est pareil professionnel laa dama mën li may def yaa ngi dégg dama ko mën sori ci yu ma yu may fay très très cher may def samay combat donc nga xam ne mooy ndey ndeyu léegi di Balla Gaye kooku laa mën a xamee moom laay bëre. monsieur Alioune Sarr c'est un cerveau grand monsieur que que je respecte beaucoup d'ailleurs lui et toute son donc moi je pense que ni euh, cinq jeunes pour ma teg rek moom laay wax pour ma laaj incha allah dinañ ko am ci pour dimbali mbër yi pour dimbali ñu ñun donc lépp lu ma teg parce que doomu Sénégal laa donc lépp lu ma teg lépp ma laaj rek dinaa dinaa leen fekk si avec tout respect pour def ko comme ni ñu ko bëgg rek dinaa ko def mais xalaatoon ni léegi war nañ mën a def ay combat Dakar ba Bercy te problème mu licence yooyu war a yomb athlète. waaw xam nga mbëri ñu ngi fii. champion yi ñu ngi fépp ñu Allemagne ñu États-Unis ñu ngi partout dans le monde donc sénégalais mi ngi fa Sadio fu mu la nekk boo gisee sénégalais bu ci am combat fooy dem Miami fooy dem New York fooy ñëw Los Angeles fooy ñëw Suisse fooy ci am combat doo toog Sénégal préparé ko fi ngay ñëw ut si man nag si naa <laughs> dëkk man di fi xolal di fi liggéey di fi train di fi entrain di fi def lépp kon loolu war na leen a jaaxal loolu dañ ci xalaat bu baax donc la lutte comme ni grand yu suñu waxee ne musique amul frontière bëre bi amul comme frontière bëre bi nekk dafa ubbeeku man loolu laay laaj fu nekk nii ñun loolu la ñuy jafe xoolal loolu la ñuy jafe nii waaw bëre ba ma tax a jóg espoir ba ma tax a jóg yàgg naa ci c'est tout. mbokk yi gannaaw loolu it xam ngeen ni arts martiaux ñu ngi ci dëj dëj boo xamante ne nii et kenn du ko fàtte mbay booy mi nga xam ne moo daan daje Afrique yëpp ca Ndar. mbay booy ci bëgg aar martiaux daanaa leen ko wax ni boo demee këram sax jànq ca ñëpp ay ceinture noire lañu ci wàllu judo moo tax ñu koy jaale képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci aar martiaux xam naa ni maa ngi fàttali kër ba ñu jógee Rosso ànd ak Balla gay ñoom Elton ñoom Thierno ah xale yëpp xale yi école de lutte yu Balla gay yëpp day saan bi ñu ñëwee ba Ndar dama ni leen kaale ñu jàdd kër mbay booy ndaxte fii am na ñu fi sant wàdd ñu jàdd fa mbay buy teral nu defaral nu ndékki defaral nu lépp loo xamit ndeysaan nan ma baal ah keroog xale yi ndeysaan seen xol dafa sedd mu ne Elton yow yaay sama mbër yow yaay sama mbër del ñëw ma lay won ay feem ci wàllu bëre Elton gëm loolu def ko papa ndeysaan Elton jóge na fi dem ba ndar seeti ko te kon mbay booy ci ñun la bokkoon mbay booy yàlla la yàlla xare àjjana mbay booy yàlla na nga xippee àjjana nit ku baax nit ku laabir nit ku bëggoon li mu daan def fonk ko nag waaw bëggul woon ko yàq lépp loo xam dafa jëm ci armatio moo tax ñu koy jaale nag ñu nit sunu sensei Alioune Sarr mu nekkoon xaritam daan ànd ak moom ci wàllu liggéey ci lu bari ñoom ñaar ànd na ko Bantamba ak 2 wane nañu seenu jom ojo.